teewaloon tey Mboye Madiaga avant tout dañ leen di souhaiter bonne et heureuse année ñi ngi fii tey ci buntu ravin fas yéenee def ba mu baax daanaka lii ñu fekk ci mbedd bi rek wane na ko xam naa nag dañuy dem ci biir fas yéenee def ba mu baax rek caméraman topp ma ñu dem ci biir. bi daa niroog sama caméra bi sax. gis nga lépp rek Mboye Madiaga moo moo ko waral. waaw waaw ah, yaakaar naa ba zéro de. ba maye dara dañuy yoole. waaw maa la ci biir. sama góor la damay dugg si yam si moom mënuma koo romb mais maa ngi lay souhaité bonne et heureuse année sama góor nam naa si loo ne. maa la raw. maa ngi leen ah. bu baax a baax. lu waral lii nag. waaw xam nga mun a ñàkk ndax ñu ay doomu Baale Zar lañ nekk boo doomu Géejawaay ay doomu Baale Zar lañ nekk doomu Géejawaay kon sunu xarit sunuy doomu ndey bu xewlee luñ mënoon jàpp dañ ma dañ koy bàyyi xam nga rabee duñ fi gan ndax chaque jour fii la ñuy xëy fii la lu ñu am rabee mooñ ko may man nee naa si àdduna ñetti woykat laay déglu ak sekk mboy ma jaago jogu mbay ñet yoy lam tayo sama bàjjan nga suma xarit nga lo xew la bu ma yëgee da ngay ñew damay teew wa lool dafa leer ñu ko afara ñu ngi won ci biti nak fum tolni duggu nañ ci soirée bi ma ngi ni ci entre ma ngi taxaw ci escalier fum tolni nak dama wara wacc damaa war suñu suñu star bi muy mboy ma jaaga xol nan la fas yéene ay fan sam tay

ful bi dina jóg maa ngi nii ci kaw podium bi mooy ma jaagaa ngi nii fas yéene démarrer soirée affaire yi ful man de maa ngi nii damaa doon yéeg VIP bi may yéeg ma dajeeg ku ñuy wax moor moom ci tuddee yi la bokk ma ne balaa may def dara dama koy laajte lan la ci bés bi daal ba ñu tuddee ko waaw mbooy sama xarit la oo oh. mbooy dama leen sama xarit quoi xam nga mbooy su ma tuddee damay ñëw ndax ma nag mbooy du tey dañoo yàgg nek nekk sama waay nekk sama doom day loolu moo tax ma ñëw si bis bi. waaw comme li mu wax leer na yaakaar naa ne da ngaa war a wàcc fii ba zéro. waaw waaw mooy moom lu ma ko dama kaa amul. te maa ngi koy ñaanal yàlla. kon neex na ñun ñu def suñuy bët di xool. nan nga fas yéene def. d' accord maa ngi koy ñaanal yàlla rek. ok moom xéewal affaire bi jàll bu baax. ma gis benn grand boo xam artiste la ñu ko ràññee bëri nañ. ma ne may romb nag naa waral lan moo waraloon teewaayam fii ak xale bi mu seetaan si fii lan moo fi doonoon sa tànk daal. waaw maa ngi nuyu waa téléspectateur u Guédiawaye info yëpp euh, li waral suñu teewaay mooy mooy suñu rakk la suñu xarit la aussi ku ñu jox cër la lool rek moo tax ñu teew. waaw man doon ñaataable rek xale bi li muy woy nii ndax am na talent. waaw xam nga way moom kenn mu cee ndax kenn yow mi koy déglu su neexee di nga ko xam su neexul ko xam mais vraiment moom doomu buur géwël la ba pare sama mbokk jabar la looloo gën a jokk tax ma ñëw aussi tamit jàmbaar la vraiment. waaw daa mel ni li muy woy fii neex na ci ay xol daal ndax. partenaire am bu baax daal xam naa ne tàq na ba yàpp daal ma doon laaj lan moo waraloon sa tànk ci soirée bi. bon suma tànk ci soirée jarbaat Alassane Samba Ndongo moom mooy parrain bis bi bon mu ñëw souhaité ma ma ñëw accompagner ko muy suma jarbaat bu seetlu ko baax vraiment nekk un grand responsable.

แล้วก็เล่นแล้วก็เล่น gis koo xam ne artiste la ñuy wax Mayga mooy magam daal Mayga léegi damaa bëggoon mu wax ko moom lan moo waraloon tànkam ci soirée bi ak moom ci aar bi mu nekk daal maanaam. waaw asalaamaaleykum maa leen di nuyu yéen uh, waa waa Guédiawaye ah waaw waa Guédiawaye ah n'est-ce pas nu ngeen waxee waaw moom Guédiawaye info maa leen di baax baax. waa Odile yow maa lay gërëm di la sant sama jabar nga waa soirée bi nag benn soirée sama xarit. mooy Badianga ku ko xam xam Maguette Maguette man ak moom benn lañ ñuy ànd liggéey. waaw dafa leer. waaw ma mbooy buy tëgg ay jàkkaarloo ay affaire yooyu da ngay ànd moom di dem ànd boobu ngay ànd moom di dem lan lay def si yow daal maanaam. waaw mais xam nga man damay dund musique man musique laay teewoon musique laay dund damay animé en même temps man damay way su ma neexee way su ma neexee lépp musique la waaye booy day sama xarit sama séddoo barki Serigne Touba xam nga lépp am maanaam moom lépp lu am daf ci yéene man lépp lu am dama ko ci yéene kon bisam dama jawra taxaw def ci loo ak loo mënul après ëllëg moom yàlla moo xam quoi luy ñëw may defal ñu defal ñu amin amin amin yaakaar naa ne kenn du ko werante ngi taxawoon ak rakku Mayga Mayga miy woy daal maanaam fu mu bi mi ngi wax ngi ma doon laajte lan moo waraloon sa tàng si soirée bi. waaw xam nga man fii ci banlieue bi xale yi samay doom lañu parce que mbooy euh, yaram ak ay tegginam mën na koo may lu ne tey boo gisee ma ñëw fii ànd ak suma xarit bii di jéeri ngoone euh, ab yaram ak ay tegginam moo ko waral ñu ngi ci ay ñu ngi ci ay programme programme yi ñu ko mais jaral nañu ak télévision bu mag ñëw fii ci Ravin mbooy liggéeyam bu rafet ak yaram ak ay tegginam ak xam gëdday mag moo waral ñu bàyyi lépp ñëw kon tey bu télévision bi dikkee ñëw jël ko ma taxaw nii war cee wax man du ma def lu dul di ko ñaanal rek sunu borom defal ko ay xéewal yu bëree bëri. ni ma gisee seen taxawaay ci soirée bi yaakaar naa ne artiste bi tax ngeen ñëw fi ku am yar la ndax koo jël rek yar la lay wax ci moom daal. dëgg la xam nga. li ma la waxoon léegi rek gis nga mu la mayul dara du ko may mën nañ laa booleeg sa alal toroxal waaye mun laa munuñu laa boole ak sa yar toroxal du am mukk kon bii xoolal su ma do bu ma doon dem France sax dinaa taxaw gérer ko ba pare soog a dem mais yéen maa ngi leen di gërëm mention spéciale di ñaan télé bii yàlla def ci ay xéewal ba bu heure bi déwénee mu nekk ay télé télé àdduna bépp di ko seetaan. waaw xanaa kontaan ci mbooy di ko ñaanal aussi bonne bonne continuation mi nit ku baax vraiment ak soirée bi sant yàlla. waaye dafa mel ni mbooy li mu am yomb yombul de ay magum nga ba heure bi ñu ñëw si soirée. waaw xam nga li waral mooy baax gi yar gi tey gi te mbooy nekk na koo xam tey bu ñuy wax ci moom aussi la en tout cas la wax ci ah fi nga sa loxo la. jàpp rek teewu bàyyi à tout leer na paa bi na fi mu teg sa bu fa teggi dafa leer waaw